toll si ñaari weer bi ñu toogee ak kii di premier ministre Amadou Ba liggéeykat yi nekk collectivité territoriale di xam ne ni xaar bi yàgg na lool moo tax ñuy woo nguur gi ñu jëfe accords yi nga xam ne moo génnoon si ndaje boobu. intersyndical kat nee na maa gën a bëgg jàmm ñëpp maslaa ba ñu maslaa ma du nga xam ne moom la ñuy wax naan. weeru janvier bi ñu nekk bu ñuy fay nañ fay liggéeykat yi seen yokkute nañ fay liggéeykat yi seen yokkute yokk bi nga xam ne dañ ko yokk ndax lépp li nga xam ne ñun waroon nañ ko def te gouvernement bi lépp xam nañ lépp sotti na ci lépp pare. ndaje boobu nga xam ni mi ngi am si fukki fanu weeru novembre liggéeykat yi rafetlu woon nañu ko. boobu la premier ministre Amadou Ba jël ndogal def benn commission ad ngir ñu mën a faj jafe-jafe yi agent yi di jànkonteel. le premier ministre. élimaane jëwriñ yi dañoo joxoon délai wu fukki fan ñun ñu ni ko na daal di jël ñaari ayu bés ngir saafara boobu la jafe-jafe yàggul ñu daal di gis maire yi ak président conseil départementaux yi seen i ndàmpaay ñu daal di koy yokk. revue à la hausse. intersyndical bi di xamle ni duñu banque seeni loxo bi ñu fajul seeni jafe-jafe fii ak weer bi di dee. donc ñu ngi interpellé gouvernement bi di interpellé le premier ministre pour que mu jël dossier bi en mais avant le début de la campagne électorale. su ma ko rappelé mooy Mody Gueye def na conférence de wax ni su fekkee ni gouvernement bi dafa ñu taxamlu privilégier la politique dinañ déposer préavis de grève générale. si wàccaay jongante njiitum réew intersyndical bii di sàkku politique bañ a laale ci mbir mi.